إلى الكتاب والحديث انصرفا asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara di jiital di nuyu bi asaahibul fadila Cheikh Mahamadul Muntaqa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko te kàttanal ko mboolem liggéey bu mu naal ngir liggéey ko Sëñ Tuubaa lépp ñu ànd ko moom te lépp ñu day ca ngërëmu sëriñ bi di leen siyaare ci bisib sëriñ Mbàkke soxna bi bii nga xam ni ñu ngi koy waaj ay weeri weer ba tey la bés bi kon sit bi bu ñëwee ci waañ wi di jël liggéey bi ak ngir di taaral liggéey bi kon loola baax na ci ñu wax ca ndax it yaakaar naa ku ne màggal ne waañ te waañ wi mooy dëggi dëggi liggéey bi waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin coono yañ ci daan jànkontol sun borom defal na ci ndimbal ak tawfiq liggey bi nak lepp lepp lepp normal na ta ta yemu na Serigne Moustapha Bousso mi nga xani moy jeewrini wañu and ko ay rakam and ko ay bayam ak domam lolé gis nañ ko ñu ko taxawoo momit liñ ko joxon ngir mu taxawu ko na ko sëkk ñu ngi koy ñaanal sunu borom defal ko ci ndam ak katan ba yaakaar ji njaboot gi am ci moom ngir jox ko liggéey bi mu di ko mu di ko mu di ko dogal kon yàlla na ko sunu borom dimbali defal ko ci tawfeex liggéey bi daal moom lépp lépp lépp yem na ñam yi nañ ko togge woon ak nañ ko defe woon ngir organiser wu ngir yóbbu ko ci dal bi ci dal yi amuñ ci benn jafe-jafe jafe kon it yéen sit bi nga xam ne yéen doon taxawu liggéey bi ñu ngi leen di ñaanal sunu borom defal leen tawfeex ak ndimbal ci barakatu Seexul Xadiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ bi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci turu le maire Abdoul Ahad Ka mu yebal nu fi ñu ñëw fii ci bisub sëñ Mbàkke soxna bii Serigne Mourtada Lo mii nekk adjoint au maire ak Babacar Mbacke mii di wax ak yéen nekk tamit adjoint au maire mu yebal nu fi ñu ñëw teewal ko ci bis bii wax na it sax ne dafa nekk ca toolam yële waaye bu soobee suñ borom mi ngi waaj pour ñëw waaye ñu jiitoondi ko rek suñ ñëwee teewal ko fi maanaa sàkkul ko fi it ñaan ndax barab bi itam barabu ñaanukaay la boo xam ne. liggéey bi nga xam ne sëñ bi teg na ko ci loxoom ñu am ci ndam ak équipe bi mu àndal yëpp ginnaaw bu ñu leen santee gërëm leen bu baax a baax nag ci seen taxawaay ci dëkk bi daanaka kàddu yi moom mën naa bañ a gudd ndax man dama fee taxawee ñaari ñaari tànk ndax ginnaaw man suñ mbàkki soxna miñ koy defal sama maam la ma teewaat fii it ànd ak suñ Mourtala Lo mii adjoint au ci turu maire loolu ñaari tànk laa fi taxawee. waaye kàddu gi moom ñi ngi koy jël ci turu maire di ko jël itam ci turu suñu Mourtala mii nga xam ne moo jiite délégation bi di am mbégte bu baax rek ci teew gi nga xam ne teew nañ ko fii di ñaan itam suñu borom subhanahu wa taala ci barkeb Serigne Touba ñaan yi nga xam ne ñi ngi ko fiy ñaanal yépp suñu borom nangu ko ba eggale ko foo xam ne dina kawe njort jërë ngeen jëf ñu ngi leen nuyu bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Serigne Mourtala ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Serigne Babacar Mbacke di leen sant di leen yóbbante ay cant ak i ñaan ci sëriñ Abdou Lahad Ka ñu ngi koy ñaanal li ko liggéey bi ko sëriñ bi dénk te muy lu jafe lu compliqué yàlla bu mu ci am benn jafe-jafe yàlla na ci am tawfeex ci sëñ bi yàlla na ci am it coono bu mu ci am rek yàlla na ci am ngërëm ngërëm yi ko ëpp barke Cheikh Abdou Lahad ñu koy ñaanal bu baax a baax di rafet lu baaxit it nag yi doxinam ci yoon wi ak yitteem ci yu mel nii ndax danañ koy def fu yu mel nii amee rek dana ñëw baa mu am ñu ko fa teewal li jotam di ñàkk-ñàkk te loolu nag nu ko neex ma di ko def la waaye bokkul nag ci sas wi bokkul ci liñ ko yan waaye ñu ngi leen di sant di leen ñaanal loolu it ñun ñëpp ñu bokk seenu teewaay fii nag moom moom sunu teewaay ñoo fi am ñoo bokk luñ doon ci bis seen maam la sunu maam la kon ñu ngi ñaan ñun ñëpp rek yàlla fajal ñu sunuy aajo jàpp naa ne tam da ngeen a ñëw ñëwaat eh, ñëwoon ngeen xëy si si Mourtala xëy si woon na ci turu boppam ak xam lim ci doon àndaat adjoint maire bii nii moom ñuy ñaari adjoint maire muy ndombay tànk yoo xam ne yàlla mi leen ko jox yàlla na leen ko sàmmal te fegal leen lépp lu leen nar a gàllankoor bëgg nañ ci jotaay bi bëgg nañ ci teewaay bi yàlla na ko fekkee at yu bëree te muy ànd ak tal asalaamaaleykum wa rahmatullah aousu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani wa barakaatu mbokk yi ñu jàkkaarloo ñu ngi leen di ziar bu baax te di leen nuyu ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ne moom lañu ñu amal tey jii di ci fàttali ko sunu maam ju baax ja sëriñ Mbàkke Soxna moom maam Abdul Xaadir moom maam Bala Isa ci suba ba léegi nag ñu yendoo màggal gi kilifa yi yëpp yoonu murid kenn disul Cheikh Mamadou Muntaxa mi nga xam ne mooy xalif sanaal murid te du suñu kilifa ñun ñëpp ay ndawam ñoo fi jiitu ci suba mboolem njabootu sëriñ Tuubaa ak askanu maam maaram kenn kenn desul xam ngeen ne bis bi tey dafa am lu ci ay soppiku yu bari yu ci am ren dañ koo darajaale sunu maam sëriñ Ibrahima Mbacke sëriñ Mbacke Kajoor ki nga xam ne mooy jiite njaboot gépp di sëriñ maam Balla Mbacke di moom sëriñ Abdou Dia joxe woon ci ndigal ñu def ko amoon ci ay taaba rondu ak ay waxtaan yu jiite bis bi ngir gàttandoo ko bis bi. mu defoon nag jëwriñam sëriñ Mouhamadul Amin mu sëriñ Baara Mbacke Doli mu dewnoon jëwriñ ji nga xam ne fii la doon defal amee table ronde bi bi ko ko defee tamit <clears throat> ca biir waxtaan woowee it mu tànn sëñ Modou mi nga xam ne mooy ab taawam tegoon lépp ci loxoom la ca ajoon ca bis ba ca benn yëpp sonn na ca taxaw ca taxawaay bu rafet kii ko jiitu it ci bis bi luñ masaan kii ci bis bi ci màggal gi ak lu aju ci bokk gi. lepp lu mu ca yegg dana ca taxaw taxaway ki yo xamne kenn du ko ci man bis bi rek ma ngi koy togn legi naa ko màggal nga magal gi ñek bis bi di ñew taxawon na ci ay taxaway yu rafet def ci alalam def ci lu man lepp ba bis bi ak si ci yeko yee ci jiitu ca taabal ak magal ki kenn mënu ko ci bo gisee nak ñu diko jox kaddu mu wax ci bis bi serigne bamba la dafa defon serigne bara mu nekkon jëwriñ ji ci bi ñu waajal màggal gi table ronde bi bi ñu accès waatee ci table ronde bi mu fa baat ko tax ci loxob sëñ Modou mu def ci àllam def ci léppam mu ñëw ànd ak ñoom gis bi ci màggal ba agsi fii moo tax ñu bëggoon koy jox ay kàddu rek mu soññ ci sànni ko ci gisu màggal gi soñ soññwaale ñi nga xam ne ñooy njaboot gi ñu gën a farlu ci bis bi te gën koo fonk te gën koo sàmm kon sëñ Modou lay jox kàddu rek nga jël ci ay kàddu bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi ñu julee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi lool ci wér euh, waaye di ñaanal mboolem mbokk yi ndax euh, bu ñu waxee kër sëñ Mbacke soxna mën na wax ne tey euh, bépp ci Touba boo fa demee da fekk ku bokk ci sëriñ Mbacke soxna loolu nag ak barkeel la waaye it xam na digganteem ak Seexul Xadim ndax euh, ab taawam Seexul Xadim la ko tuddee waaye ñëpp xam nañ digganteem ak son moom sëñ Mamor Diarra euh, waaye mu doon koo xam ni tamit l'islam bépp ràññee woon nañ ko ci ak nekkam euh, ab taxawaayam it mbokk yëpp ràññee woon nañ kon tey mën noo wax ne fépp foo dem ci biir tuubaa fépp foo dem ci ahlu lu da danga fa fekk njeexitalu sëñ Mbàkke soxna waaye ñu nit kàddu gii bu ñu ko yëkkatee dañ ko yëkkati ci kàddu sunu waajur muy sëñ Baara Doli Mbacke euh, ca buñ ko tuddee rek dana mën a jël lépp delluwaat ko ci sëñ Maam Balla mi nga xam ne moo di ab xarifaam wax nañ ma léegi ne sëñ Daalu fi la yendu kon lépp day delluwaat ci ñoom euh, di wax ne rek euh, lépp luñ ci defit ci seen ndigal lañ ko defee di sant nag yàlla bi mu ñu booleek sëñ Mbacke soxna it ci mbokk gi ndax damay faral ni mbokk am na waaye mbokkoo mooy li gën a am solo yàlla dogal na it sëñ Mbacke soxna ñun feer nañ ci mu nekk suñ maam jëm euh, nañ ko jàpp nañ ko it bu wér lu ñuy dund la it ndax euh, li tax euh, ñëpp xam nañ tamit taxawaayam ci lislaam waaye ñëpp xam na ne jaxasoo gi nga xam ne jaxasoo woon na ko ak mag ñi ñëpp xam na ne tey yii ci tey dëkk bi kun fi tudd ku nekk boo ko toppee dana am foo xam ne ci sëñ Mbàkke Soxna la bokk kon nag bis boobu man li may fas yéene rek waxtu wu ñëw ñu fas yéene koo ànd ak yéen bii nag moom dañ cee am ndigal ndax ndigalu suñu waajur lañ ci am kon lépp lu mu ci fas yéenee def rek ak lu man di doon dañ koy xeeb waye it ñu fassiyene gëna dundal mbokk gi ma bëgg it lepp lu ngeen mëna a nekk lu nekk rek bu ngeen gesso da ngeen may gis waxon na leen ko barki dembu ba ngeen fa euh, ci lool it ci la amé yene wax ne barabu señ euh, Abdou Khadir balé amna am am buma amé ndigal ci señ Mam Balla ak señ bara am ndigal and ak mbokk yépp défar ko ndax nak lama ma gëm euh, moy ku mel mam Abdou Khadir ab taxawayam lima gëm ki tay ku ne lo bok ak mom bu ka bindoon kamil bo kamil bi nga tay moom mi ko bind woon doonu ko ndax moo njëkk a génn àdduna euh, euh, sëñ Mambal waaye tey ci tey bu ñu tuddee kër Seexul Xadiim tudd sëñ kër sëñ Mbàkke tey danañ jëm na téere boobu lañ koy doon kon nag gëm naa ne kooku foofu la mbir mën a yem ca ab liggéey foofu la mbir mën a yem kon tey euh, foofee mu tëdd laaj na ñu màggal ko. laaj na ñu defar ko ba ku fa ñëw xam ne ku baax a fa tëdd loolu na moom jaayante naa ko euh, ci ci bis bi laa koy lancé muy bisu sëñ Mbàkke soxna bi nga xam ne moom lañ bokk ak moom waxoon naa leen ko it fee mu ne ca tëdd ci wetu Maam Mor Jaara ci ku tëdd ki Seexul Xadiim waxoon ne nan leen boolee ñoom ñaari seen ñaari barab yi lépp luñ ci mën ci liggéey boobu dañ ko defit ba boo ñëwee ne sëñ Maam Mor Jaara ngi nii ne sëñ Mbàkke soxnaa ngi nii kon loolu it waxoon naa ko euh, euh, ci liggéey boobu incha allahu rabbi waaye bi ñu gën a taxaw daal fi mu doon yi mooy barab ba lépp lu luñ ci man ci def ko ba ku fa ñëw xam ne fii moom Abdou Khadir fa la tëdd dañ ko def insha allahu rabbi ñu ngi leen di fedd li ko yëpp ndax yéen mbokk yu neex a bokkoo ngeen ndax seen taxawaay ci dëkk bi rafet na lool ndax li may wax rek euh, nit ki moom na ngeen bokk seen mbokk day tënk ci ni ngeen di bokkee ak mbokk lolou moy li ëpp solo waye ki nga xam sax bokku leen ak bokku sax bokku leen wet gu ngeen jëm day melni ne ga dafa am lu way dess waye yeen nak nu neexo mbokkoo ngeen ci nu xam seen bop ngeen ci ñun ci lolou lañuy dox ma ngi leen di sante ma ngi leen di gërëm wa alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Modou kaddu yi sha allah rafet na loolu tamna solo euh la lañ koy waxtaan rek yow lu mëna xew gëm nga sa bop xam nga yaay kan xam nga fi borom boole ndax lu gudd guddi rek daru salam du yoli te ko ak dara te kenn mënut a tudd sëñ Abdou Khadir ja borom Diole tuddoo sëriñ Mbacke Soxna mooy ab taawam njëkk koo wóotu wuuf ay ay rakam yëpp taxawu leen nam leen war a taxawoo ba liggéey bi ak si fi tey kon ñu ngi lay ñaanal yéene ji nga xam ji nga xam ne moom nga am ci liggéeyal barab maam Abdou Khadir boo xam ne mooy taaw boobu nga xam ne moom la ñu askanu Mbacke kër maam Balla donante maam Abdou Khadir doonubu ko ndax dafay njëkk a jóge maam Balla Issa njabootu sëñ Moronte ko donn ak njabootu tey jaar na ci loxoy sëñ Saliou Mbacke Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul jaar ci njabootu sëñ Tuubaa gu baree bari ba ak si fii tey ci xalifa sëñ Mbacke Kajoor ci sëñ Moustapha Mbacke kon boo amee yéen maam Abdou Khadir moom mi nga xam ne moo defoon loolu tëdd fii ca Mbacke ci depuis 1867 ba jamono jii tey jar na kon nag barab boobu ñu mandargal ko muy barabu siyaar barabu nangu ñaan ñu ngi lay ñaan li nga ci yéene suñu borom defal la kattan ak wér ak xéwlu yaatu ba nga mën ko àggale ci barke Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh di leen jottali lu nuyoo bi ci bokk yi di leen jottali nuyoo bi Cheikh Cheikh Moustapha. sëñ Abdou Lahad nee na mu ngi leen jottali nuyoo bi Cheikh Moustapha mi xalifam sëñ Mbàkke Kajoor. mi nga xam ne ci ndigalam. mi nga xam ne ci ndigalam. ci lañ fi teewe. ci lañ fi teewe. yabal rakkam yi. yabal rakkam yi. ak doomam yi. ak doomam yi. ak njabootu kër gi yëpp. ak njabootu kër gi yëpp. ñu àndandoo. ñu àndandoo. ñëw teewal ko fi. ñu àndandoo ñëw teewal fii. teewal fi njaboot suñu Mbàkke Kajoor gépp. teewal fi njabootu sa suñu Mbàkke Kajoor gépp. di am mbégte bu baax. nee na di am mbégte bu baax. ci jëf ji nga xam ne njabootu sëriñ Mbàkke soxna ci jëf ju réy ji nga xam ne njabootu sëriñ Mbàkke soxna jëf nañ ko jëmale ko ci njabootu sëriñ Mbàkke Kajoor. fab bis bi tudde ko sëriñ Mbàkke Kajoor. fab bis bi darajaale ko sëriñ Mbàkke Kajoor. kon sëriñ Moustapha ak njaboot gi yépp nee na sëriñ Moustapha ak njaboot gi yëpp. ngi sant bu baax ci jëf jooju. ñu ngi sant bu baax ci jëf jooju nga xam ne jëf nañ ko jëmale ko ci sëñ Mbàkke Kajoor. rëy na ci ñoom lool. sëñ Moussa nee na jëf ci tamit rëy na ci moom lool. yéeg na ko. yéem na ko lool tamit. gis na ko. gis na ko tamit. te jàpp na ko. te jàpp na ko tamit. fedd li ngeen kóllëre. fedd li ngeen kóllëre. suuxan ngeen ak bokk. suuxan ngeen ak bokk. dundal ngeen ko. dundal ngeen tamit ak bokk. yal na leen ci yàlla fay lu kawe seen. na leen ci yàlla fay lu kawe seen jot. barkeb sëriñ bi. barkeb sëriñ bi. xam naa kàddu yi moom dañuy bàyyi ba dem ci jataay ba. ne kàddu yi moom dañuy bàyyi ba dem ca jataay ba ca baas ba. doog ko faa jottali doog ko waaye lii nag. waaye lii nag. sëñ Baara. sëñ Baara. sëñ Moustapha. sëñ Moustapha. ak njaboot gi. ak ñoo waxoon nañ ko teg ci seen loxo. ñoo waxoon noo ko teg ci seen loxo. ngir feeñale ko seen yéene ci bis bi. ngir feeñale ko seen yéene ci bis bi. ndax bis bi lépp luñ ciy def. ndax bis bi lépp lu luñ ciy def rek. ñoo ko ci waaw def ñoom ñi di ñëwatu seen Mbàkke Kajoor ñoo ci wara def seen bisa seen bis la lu ci way jàpp lu ci way jàpp ñun nga ko dimbalé ñoom nga ko dimbalé kon li kon li xeeb nañ ko lool xeeb nañ ko lool ndax lu neew la ci liñ yéene ndax lu neew la ci liñ yéene way ñu tek ko ci loxol njabot gi rek way ñu tek ko ci loxol njabot gi rek ngir jappé ko ci bis bi ngir jappé ko ci bis bi jërëjëf jërëjëf yalla ngeen ko yagg def yalla ngeen ko yagg def asbillahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi delluwaat di leen nuyoo ko ziyaara euh, bu ko defee ñu taataanaat suñu kàddu ci sëriñ Iddaali Mbàkke mi nga xam ne moo fi teewal sëñ Maam Balla moom sëriñ Abdou Dia Doyoly sëñ Maam Balla mi nga xam ne moo nekk ci boppu njaboot gi mu yabal rakam sëriñ euh, Iddaali Mbàkke mu Abdou Dia gi rek ñu ànd ak ñun bis bi ca suba ak léegi moom lañu war a jébbal kàddu gi moom mi nga xam ne moo fi teewal sëñ Maam Balla war a wax ci turam mu jébbal kàddoom it euh, doomam Serigne naa Mbacke moom Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Abdou Dia bu ko defee ñu euh, teewlu kàddu yi bàyyi ko ci moom bisimilah. ñoo ngi siyaare di sant yalla di julli ci yonent sallallahu alaihi wasallam sallam di jaajëfal Serigne Touba waye di gërëm waajur di am mbégte loolu itam ci taw ci jotaay bi nga xamne ne mbokk la ñu taxawal ko di ko ko sun mam serigne bak soxna di sen mam ñom ñi njaboot gi taxawal ko di ko ci fatli ko jii nag sëñ yi dal ñew teewal si sëñ Baara mi nga xam ne moo yor baatu kër gi ci turu sëñ Mame Balla mi nga xam ne moo jiite njaboot bi ñu àndandoo ak eh, lenn si njaboot bi ñu teew mooy sëñ Daali mi ak waa këram sëñ Xaadim ak sëñ Saliou sëñ Mouhamadou mi nga xam ne mooy doomi sëñ Mame Balla mi ngi fi teew ak eh, sëñ Fallou Mbacke sëñ Murtada ak eh, sëñ Saliou moom Baye Serigne ak sëñ Saliou moom sëñ Daali mi ba tey ak sëñ Daali moom sëñ Mahmoudane suñu Basiru moom suñu Mahamadan fekk bi suñu bokk yi nga xam ne ñoo bokk lépp di suñuy rakk ñenn ñi di suñuy bàyyi ñenn ñi bokk ñoom bis bi ci ndigal loo xamante ne bi dañ ko amee ci xalif général di murid Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom guddal ak fanam tigaral ko jaare ko ci suñu mbàll mi nga xam ne moo jiitee njabootu suñu sax na bi la ci bopp bi ñu taxawal bis bi jaar ko ci moom mu joxe fi ndigal ànd ci yi ñu ci def jotaay yi ñu ci def yëpp ñu jaare ko ci moom ci ndigalam muy lu rafet loo xamante ne bii eh, moo tax mu yebal suñu daal yi mii mu ñëw teewal si ko fi moom ci boppam mu war na ñëw teew waaye xam nga ak mag am na fa bu fa nit mën a ñëw di eh, teew yenn jotaay yi ci la suñu wax ne nag ñu yëkkati suñu kaddu ci turam eh, ci turu suñu sant njaboot bi bu baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ndax bokk na ci li nga xamante ne bii du nu wàcc. mooy di fàttaliku mag ñi te fàttaliku mag ñi dara jiituwu ci fàttali fàttaliku fi nga bokk ndax ndaw de ay ndaw dañu sunu suuf te war a nekk aw ma mag ëllëg buñ leen xamul fi ñu bokk ëllëg ñoom bu ñu màggee dana jafe loolu ñu wax ñu wax leen ko te dañu toll ci jamonoy bind ak jamonoy communication la weesu woon moom weesu na ndax boobu bind ñi dañu nettali rek léegi nag bind xew ginnaaw bind xew nag ak jataay yi li ciy jóge ñu di ko bind di ko nettali ndaw ñi mën koo dégg ëllëg ñi mën cee roy da cay baax loolu moo tax suñu mbàll mi ngi sant mbooloo mi mépp la ko tàmbalee ci sëñ mu ñoom mi nga xam ne mooy suñu alaaj jiitee mbooloo mi suñ Fallu Baay Tuubaa mi nga xam ne moo jiitee kuréel bi ak mbooleem commission yi nga xamante ni ñoo yore jotaay màggal bi ñu ngi leen sant bu baax di leen ñaanal ci barke Serigne Touba jot eh, ndaje mi gën a jëm kanam ndaje mi nag bis la boo xamante ni dañ koy fàttaliku suñu barke soxna waaye mi ngi jóge woon ci suñu waajur sëriñ Saliou ñu di ko dox bi activité sëriñ Ambale sëriñ Ambale itam nangu jataay bi ànd koog ñoom ba euh, matale ko ba mat sëkk ndax sëñ Mbàkke mi koy defal day kenn ci mag ñi doonoon koo xam ne kii itam euh, ku ñëpp xam la doonoon mbokkam ñëpp matan lim doonoon sëkk itam nag yaroon ak njabootam ci diine jàngal leen xamal leen njabootam gépp ñu jox leen Sëriñ Tuubaa Sëriñ tubaa yaral leen boppam ñen ñi mu yara leen bop ñu ci des itam mu joxe leen euh, fañ dem jàng ñu yar leen ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi itam ñëpp sëñ bi ñi ci ëpp sëñ bi joxe leen ñu dem kër kon kooku kenn la ci njaboot bi tey jii nag ak njabootam ñoo taxaw di ko fàttaliku suñ moom bàll moom mi mag ci njaboot gi nag wax ne nañ ko nañ ñëw teewu ko ànd ko ak ñoom ci biir loolu nag njaboot gi gépp gu suñu bi ñu doyale bi ci teewaayu suñu dali taxaw nañ ci taxawaay boo xamante ne bii taxawaay bu mucc ayib la rawatina nag sëñ Baara mi nga xam ne mooy yor baat bi ak njabootam gi nga xam ne ñoo ne si mooy sëñ Modou ak ay rakam taxaw nañ ci taxawaay boo xamante ne bii wax dëgg yàlla bu sedd xol la ndax euh, wut nañ seen baay ci jotaay bi nga xam ne wala ci cër bi nga xam ne seen baay na ko def ci liggéey bi ndax bu ñu saan ak si bi sëñ Baara moo ci taxaw taxawaay boobu nag ñoom njaboot googu sëñ Modou sëñ Cheikh euh, Mbacke sëñ Cheikh Abdou taxaw nañ ci taxawaay boo xamante ne bii bu mucc ayib la ba ñoom ñi nga xam ne ñooy mbokk yi xam nañ ko yëg nañ ko loolu nag defuñu ko mbokk yi seen mbokk lañ ko defal ndax ñoom ñooy ñun ñooy moom ñooy ñoom te itam njaboot bi ñoo ko bokk euh, suñu mbàkke suñ mbàkke ñëpp la kër goo dugg ci yoon yi rek boo demee da nga fekk bokk ci moom te boo ko fekkee bi yaa fus doo ko xebat doo ko xeeb loolu nag liggéey la boo xam ne suñu mbàkke bi loolu lañ ko gën a suuxat ñun ndaw ñi ñun doo ñun sët yi boobu laay bëgg a wax ndax weesu nañ weesu nañ ndaw ñi waaye nañ ko gën a suuxat ba bu ëllëgee buñ fa desee ñun neen euh, loolee mën wéy moo tax daal suñu maam Balla neen mi ngi sant bokk yëpp di jaajëfal bokk yëpp di ñaan ñu gën koo ñu gën a taxaw gën a jëmmal seen maam gën koo wone ndax li ñëpp am moom la am ñëpp def moom la def def la ñëpp def nag wax dem wax ñëpp wax war nga am la ñëpp am te bis bii bis la boo xamee ni ko naw li ñëpp amee noonu la ko war a amee kon nag alhamdulilah bi nga xamante ne bokk yi taxaw nañ ci taxawaay bu rafet boo xamante ne bi ñëpp rafet nañ ko kon nag kàddu sant bokk yëpp di gërëm bokk yëpp waaye di gërëm nag sëñ Fallou ak sëñ Abdou Khadir ak sëñ Baye Dame Mbaye ak sëñ eh, Djili Mbaye ñoom ñi nga ne ñoo yor ak commission yëpp yi yoroon liggéey bi wax dëgg yàlla def nañ seen kéemtalaay kàttan yàlla suñu borom taxaw a dëgëral liggéey bi te gën ko rafetal salaamaaleykum rahmatullahi wa barakatuh kon mu doonoon eh, kàddu yi sant ak eh, ndénkaan yu bàyyi ko ci ki nga xam ne mooy kilifa kër gi nekk ci bopp njaboot gi muy Balla mu yabaloon fi benn délégation boo xam ne ki ko jiite mooy Serigne Idaali Mbacke rakkam comme ni ko waxee Serigne Idaali mu Serigne mu euh, ànd koon ak Serigne Seexuna Mbacke mu Serigne Idaali moom Serigne Seexuna Mbacke moom Serigne Serigne Saalihu mu Serigne Abdou Dia ak euh, lenn ci njaboot gi ñu àndoon ñëw taxaw ci taxawaay bi jottali ay kàddoom noonu mu doon kàddu yi ndénkaan waaye kàddu yi soññee soññuwaan njaboot gi ñu gën a takku gën a taxaw ci. Eh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi ci mu soññ leen ci baax a baax di seen jot seen seen seen taxawaay di yëkkati kàddu yi soññe kàddu yi cant daal jëmale woon ko ci ñoom ñuy eh, takkuwaat baax a baax di ko ñaanal moom itam yàlla gën ko fee yàggal gën ko fee yàggal gën koo dooleel ba naal yi ma am ci liggéey ko yëpp yàlla jàppandal ko kon ni ñuy def rek mooy dékk suñu loxo sëriñ bi mu defal ñu ñaan bu ko defee ñu door a mën a yëkkati jotaay bi